li nga xam ni moom la ñuy commencé dafa am benn xew-xew bu am léegi avant ñuy euh, leader yi ci agsi benn xibaar bu ñu jot par rapport ak lu jëm ci suñu candidat Bassirou Diomaye Faye ci taxawaay bu CNRA am lu jëm ci wàllu déclaration fële ci RTS donc dañuy woo son directeur de campagne monsieur Girassi mu délivrer une communication par rapport à ça. salaamaaleykum. président Ousmane Sonko nuyu na leen. président Diomaye Faye nuyu na leen. wante nag am xam ni moo xew tey dañu bëgg askan bi yëpp xam ni ndekete président Macky Sall de ba léegi dafa mel ni bàyyiwul ndaxte dafa benn am benn entorse bu garaaw ci égalité yoo xam ni war nañ ko seetlu war nañ ko am diggante candidat yi tey malheureusement dinañu seetaan télévision nationale RTS ñëpp dinañu gis candidat yëpp sauf le candidat Bassirou Diomaye Faye kooku nag CNRA boo xam ni dirigé par Babacar Diagne ñoom ñoo jël décision boobu notifié ñu ko tey jii démb jàll na Sénégal yëpp gis nañ ni dem nañ fa ak mandataire u candidat bi président Bassirou Diomaye Faye ñu def li ñu war a def comme candidat yëpp ni leen ko santee wante malheureusement ñu bàyyi ba démb jàll ñu bàyyi ba tey jàll xaar yaa seulement trente minutes pour wax ñu ni sunu candidat du jàll télévision nationale RTS wax naa mi ngi sukkandiku may ma mi ngi sukkandiku ci code électoral bi LO 134 wante ma nañu dem jàngi droit ndaxte candidat moo xam ban communication la bëgg def su ko neexee mu ne ci suma trois minutes dama bëgg écran bi ñuul su ko neexee mu ne ci suma communication dama bëgg écran bi bleu dama bëgg communiquer suma nation suma peuple man maa xam naka la ñuy naka laa bëgg communiquer suma peuple wante ñoom ak président Macky sal ak ci seen i pexe ñu ne candidat ci boppam jëmmu boppam moo war RTS te ñoom ko tëj kaso. moo tax duñ ko bàyyi nii parce que Macky Sall amul lenn loo xam ni CNRA ko def dinañu jël décision te yëgaluñu ko may fàttali ni avant. bi ñu ñëwee sunu dem RTS def liggéey ni mu waree bëgg am accès directeur général RTS dafa refuser mais defu ko woon a de l'injustice il a une atteinte grave aux droits du candidat Bassirou Diomaye Faye kon kon kon ngeen xamee ko à la presse internationale les candidats à l'élection présidentielle avoir chacun son temps de parole à la RTS. Hier, avec le mandataire et le directeur de campagne du candidat de la coalition, Bassirou Diomaye Faye, nous nous sommes rendus à la RTS. Nous avons régulièrement fait l'enregistrement. Et la RTS a diffusé pour justement montrer au peuple sénégalais que nous avons été bien présents et que les choses s'étaient bien passées. Mais curieusement, nous avons été rappelés il y a seulement 31 heures par le CNRA nous disant simplement qu'ils ne diffuseront pas l'élément du candidat Bassirou Diomaye Faye. Et la raison qu'il évoque vérité, il s'agit d'un moment de communion et de communication avec son peuple, avec les citoyens. Et c'est au candidat certifié par son mandataire de préciser les meilleurs moyens, les moyens les plus performants à son sens pour communiquer, pour transmettre le message qu'il veut transmettre au peuple sénégalais. on lui refuse encore une fois ce droit. Et nous disons au président Macky qui tente de réconcilier entre guillemets le peuple sénégalais, qui a dialogué, qui veut apaiser, mais nous lui disons en réalité qu'il n'a pas encore lâché prise et que ceci n'est encore qu'une étape dans son stratagème, sa stratégie, ses tactiques pour se maintenir encore et pour simplement réduire les chances du candidat Bassirou Diomaye Faye vous êtes informé peuple sénégalais moo leen di wax te duñ ko bàyyi nii dinañ ci taxaw ngeen taxaw bu baax on va continuer le combat vous êtes informé loolu lañ leen doon wax wasalaam waaw benn précision bu am solo sunu journaliste bu RTS yi ak technicien yi seen liggéey la ñuy def te ñu koy defee déedéet déedéet